alaikum amateur footy Nous ñu ñëw ci mardi info ak mercato dañ koy été ci Kylian Mbappé international français mars passé diggante stade Rennes ak Paris Saint-Germain Rennes bu mu mënee Paris 1 bis à 0 ci 60 minutes ci lañu génnee mom ak Kylian Mbappé. marché bi bu mu jeexee ñi laajte seen entraîneur Luis Enrique mu ne ñoom nag dañu bëgg a jouer sans Mbappé maanaam ñi abdoté wu di jouer sans Mbappé ndax Mbappé mu ngi waaj a di quitter équipe Paris Saint-Germain loolu nag moo tax moom entraîneuru Paris Saint-Germain mu ngi commencé di teg moom kenn Mbappé ban loolu moo tax nag seen entraîneur Luis Enrique muy jouer sans Mbappé. nekk loo xamante ni entraîneur yi daa yu fi jaaroon yëpp mosuñu def lu mel ni Luis Enrique def ci Kylian Mbappé moom international français bu ñu fa jógee nag dañuy ñëw ci président wu France muy Macron ak roi wu Qatar ñoom ñoo invité kenn Mbappé di ko dalal pour ñu mun a waxtaan ak kenn Mbappé. mu mun a desaat prolonger contre am ci équipe Paris Saint-Germain mu nekk loo xam ne ñi ngi koy xaartee ci ngoon moom Kylian Mbappé fan lay mujjee ak ñoom ñett yi muy président wu Paris bi ak roi wu Qatar ak président France bi la fu ñuy mujjee ak Kylian Mbappé Kylian Mbappé day dellu ginnaaw wala moom Kylian Mbappé luñ ko proposé moom lay mujjee def bu fa jógee dañuy dem ci Bayern de Munich mu nek sen jour mu nek latéral bu mun lu muy def Real Madrid daf ko bëgg média yi nak wax nañ ci mom Alfonso Davies amna accord ak équipe Real Madrid mu nek nak lo xamné ni Bayern de Munich ñoom tamit ñi ngi négocier ak Alfonso Davies pour mu prolonger contrat tok fofu ci équipe bu euh, Bayern Munich mu nekk nag dossier boo xam ne nii ci kanam dina leer lépp dina leer ci dossier boobu moom Alphonso Davies day rejoindre équipe bu Real Madrid wala moom day toog ci équipe bu Bayern Munich bu ñu fa jógee dañuy jàll ci international brésilien muy kan Vinicius Junior mu nekk. joueur bu am importance ci équipe Real Madrid nekk leader mais aussi mu nekk staru Real Madrid mais médias yi nag ñi ngi bind ne que Manchester United dañ ko bëgg ba proposer nañ ko 200 millions d'euros. mom Vinicius Junior bo xamné ni leader la mais nak est-ce que dina mëna quitter Real Madrid dem rejoindre Manchester United. jamono bu ñu toll nii jamono boo xam ne nii moom mooy leader foofu moom mooy star bi ba pare mu ngi doxal bu baax ci équipe Real Madrid nekk jour boo xam ne nii dafa fonk équipe Real Madrid moom Vinicius Junior dossier boobu nag dina leer ci kanam moom Vinicius Junior dañ koy jàllale ci kan Victor Osimhen tey nag bu ñuy wax si Victor Osimhen dañuy wax si Chelsea Chelsea boo xam ne nii ñuy recruter ay joueurs. te bu ñu commencé di recruter ba léegi ñi ngi ci bàyyiwuñu jour bu baax bu ñu gis rek bëgg nañ ko recruter indi ko équipe bu Chelsea Chelsea nag dañu bëgg nekk ci top cinq bi wala ci top 4 bi équipe bu Chelsea mu nekk équipe international sénégalais muy kan Nicolas Jackson dañu bëgg nag Victor Osimhen pour mun ko recruter mu ñëw rejoindre équipe bu Chelsea boo xam ne nii.

amateur yi nag moom dañ leen indiloon tey ci mardi info ak mercato indi leen ay nouvelles yu bees tàkk ci scène bi bu leen di nag di abonné wu bu baax man la nag Alseyni Aramatouyaye